salaamaaleykum yéen waa Sénégal ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew man la Abdoulaye Niane bi jiite coalition Dekkal Teranga maa fi ñëw tey ngir waxtaan ak réew mi di leen jottali nuyoo góor ak jigéen yi ànd man ndaw ak mag yi nga xam ne seen loxo sell na ñu am yenn ci dëkk bi lañ ñu am xam-xam ci ni dëkk war a doxe ñoo ànd ñun ah réew mi nag dañ ko dénk nguur gu bees ñu ñëw ak ñëwin bu rafet Sénégal amoon yaakaar ci ñoom biñ ñëwee ñu ne dañuy wàññi dund bi jëm nañ ci dara mais liñ jot a def doyul wante li gën a metti ci mbir mi mooy sénégalais yi amatuñu lu ñu jënde ndax koom bi dañ ko taxawal ndax xoqatal yi bari na lemp bi ñu bëgg a teg ci nit ñi bari na pexe yi ñu war a wute euh, koom xaalis bitim réew pour defar ci réew mi itam dafa mel ne manqué na leen tey nag li nga xamante ne nii ñoo ngi koy ñaawlu itam mooy nit ñi ñu tëj ak dem ba élection yu jot ñuy yëngal ay dossier di wax démocratie du doxe noonu dafa war a noyyi nit ñi am liberté di dem ak a ñëw bu élection jotee ñu bàyyi leen ak seen teyu xel ñu compétir assemblée nationale nag mooy fi nga xamante ne nii boo fa demee bu fekkee ne nguur gi li ñuy doxal du noonu ñu mën ko saytu mën leen a taxawal loolu moo tax ñu bëgg ngeen jàppale opposition bi de façon globale ci assemblée bi rawatina nak suñu coalition ndax mom lañu gëna xam am nañ yéeney saytu li ngor gi def corriger li nga xam ne war nañu ko corriger di proposer aussi ay loi yo xamante ni dina dem ci li askan yu bëgg ñun japp nañ né éducation bi war nañ ko gëna protéger surtout formation bi étudiants yi ren danaka amuñu bourse lool nak dañoo wara fexé ba protéger leen transporteur yi sonn nañ jàpp naa ne milieu de transport pour am sécurité pour que transporteurs yi nekk ci jàmm il faut ñu def ci ay loi yoo xamante ni aussi dina leer jàpp nañ ne daal Sénégal fi mu toll assemblée nationale bu xereñ soxla nañ ko boo xamante ni dinañ mën a jàppale état bi sinon juróomi at yi dina metti ñoo ngi massawu bu baax ñi nga xam ne mbënd mi Bakel Podor sonal na leen ñoo ngi massawu aussi ñi nga xamante ni nii ñi ngi dem ci géej gi te duñ ñëwaat ak seeni famille ñoo ngi leen di masawu jàpp naa ne Sénégal waruñoo jël suñu nen yëpp def leen ci benn pañe bu daanoo dinañ jaaxle looloo tubaab di wax on mais met pas dans le même pañe dañu war assemblée ñu jox ko ñoo xam ne dinañ am taxawaay bu mucc ayib mën a contrôler gouvernement bi nga xamante ne nii lu baree bari tëlee nañ ci bu ko defee juróomi at yi di ñëw ah nit ñi dinañ mën a dund ci jàmm fan yi di ñëw dinañ ñëw waxtaan ak yéen ci seen i gox jërë ngeen jëf